ñuy wax ni euh, li ñu dajale fii Déthié euh, introduire na tuuti ci euh, wolof mooy fan yële ci gannaaw dañ leen waxoon ni bu soobee yàlla daan dellu si ak yéen ci lii nga xam ne mooy lu garaaw a garaaw garaaw a garaaw lu am ci élection locale yi ndax Sénégal dañuy wax démocratie la waaye suñu xel war naa tey ci démocratie bi ndax démocratie boo xam ne ki ñu teg ci bopp réew mi pexe bu mu mun a def pour ñi mu jàkkaar lool wa war a ñàkk a dem ci élection rek pexe boobu dina ko def pexe bu mu mun munti def dem na ba tey suñu administration nga xam ne ndey ji seex la waroon a tëddee dugal na ko ci yëfu yëfu ñàkk solo yi suñu justice dugal na ko ci ci ñàkk mbir yu ñàkk solo yi wala lenn ci suñu justice lenn ci suñu administration looloo ko yóbbe woon ci mu am yu mu monté def ko ak lenn ci administration territoriale pour que ñun yewi askan wi ci bërëb yu bëree bëree bëri bëri ñu wañ a mën a dem ci élection bi yàlla def fi mujj yéen ñëpp gis ngeen ko waaye balaa loolu dem na wër ay nit yoo xam ne ni élection du doxee mooy gox ku nekk danga dangay am koo jox sa kóolute ne ko yow yaa ñu fiy toogal yaay wax ci suñu tur bu de bu bu joxe dem déposer liste jotee yaa koy déposer ak leneen ak leneen mu dem ci ñooñu nga xam ne ñun Yewwi Askan Wi amoon nañ ci ñu dem jënd leen dem jënd leen ci anam goo xam ne ñaaw na bu fu ñaaw yem rek liñ ci jublu mooy ñun ñu bañ a mun a déposer suñuy liste foofu bañ ko defee ci maatam nag def ko ki ñuy wax Jibril Ngom nun dañu ne woon nañu njëkk a toppatoo suñuy list mooy nañu njëkk dem ci cour d'appel yi pour ñu delloo ñu suñuy liste bu ñu jógee ci loolu mandataires yi nga xam ne jàpp nañ ni def nañu lu garaaw dañ leen di toppi boobu moom Macky Sall dala dalalagul woon Jibril Ngom waaye xam nga euh, euh, li tubaab naan un crime n'est jamais parfait ba ñuy jël décision ñu ni dañuy dañuy topp Jibril Ngom ci yoon moom Macky Sall dalagu ko dalagu ko woon ko loolu dama bëgg ñu leeral ko fii su ko dalaloon yi dañ koy topp ci yoon parce que li mu def dafa garaaw ndax lu toll di département boo xam ne am na lu ëpp quarante commune suma ma nga dem ñu jox la xaalis wala ñu am fu ñu jaar ak yow nga daw ak suñuy liste ñu woo sous-préfet Déthié mi woo préfet ak sous-préfet ne leen changé nañ ko sous-préfet ne pour ñu changé ko il faut mu ñëw ba taxaw moom ne moom dootul seen mandataire bu taxawul duñ ko ki ñu wër ko ci Matam yëpp gisuñu ko fu ne ñu wër ko fa nit ñi wër ko avis de recherche fu ne ñu dugg fa gisuñu Djibril Ngom loolu lan moo ko gën a ay ci démocratie kon bu ko Macky Sall dalaloon sax dañ koy topp li ñaaw ci mbir bi nag mooy ñun moom dañ koo yërëm ndax Macky Sall moo ni mel Macky Sall ni muy defee politique salte na salte boo xam ne jël alalu réew mi di seet nit ñi fu ñu gën a néewee doole day seet nit fi mu gënee néewee doole mu jël alalu réew mi wala mu ut ay moyens de pression xool fu mu lay jekkoo di essayer teg loolu sa kaw pour ne la ñëwal ànd ak man wala defal lii waa opposition bi mu fi nekkee ba léegi loolu rek la amul leneen ca jamono jooju réew maa ngi tumuraanke réew maa ngi torox moo tax fi ne nii jaaxle na ndax tappale yorul réew réew ci dëgg lañ ko yor mun nga tappale jënd ñu lay waxal fu nekk jënd ay patron de presse ku la neex nga truc ñu lay xalamal suba ngoon waaye sénégalais yi lañuy dund lool loolu du ko régler de tey ci lan lay langaamu ci lan lay la nga am suñu xëyee ñu ne FMI nee na Macky Sall exemple FMI yàgg naa leen ko wax du suñu xarit du suñu mbokk réew yu ju génn ci guuta jamono ji yëpp Brésil bi FMI waxee dañ leen dañ ne FMI d'accord ñëw lu laa teg fa la FMI def ay méthode am Brésil jóg Mahathir fii ci Indonésie bi mu ñëwee FMI ne ko lii mooy suñu recette mu ne leen dégg naa leen lem recette bi teg fële jaare na le du Sud noonu la def dans les années 65 70 FMI ku mu tàccu rek mooy ci yoon bu baax ay ah, FMI félicite na Macky Sall hmm. gars yi jël ko bind ma ne sénégalais li ñuy dund FMI xam na ko sénégalais ñi ngi lekk ba suur ñi ngi naan ba suur njàng mi dox na paj mi dox na leneen leneen ñu naan ma FMI wax na wala ñaari fan ñett yu ñu ne waaw sénégalais bi France jox na ko raaya loolu mérite individuel la mérite individuel la ay raaya France ak raaya keneen ñun fii lañu tal suñu réew mi wala su leen neexee ñu jógati ne léegi nee nañu ceebu jën euh, àdduna bi xam na ni ceebu jën nag Sénégal lañ ko xamee donte Gambie dina ko togg euh, Mali dina ko togg Côte d'Ivoire sax dina ko togg Mauritanie dina ko togg Burkina léegi mu langaamu ci ceebu jën bi yow bu école bi di tàkk kenn du la gis nga def nga nga def communiqué ci ska kii Twitter réew buy tàkk doo ko def étudiant yaa ngi nii mi ngi mi ngi mi ngi tàng bu doon réew bu normal président wax na ci du ngeen mës dégg dégg Macky wax ci santé ñi ngi grève Macky du ci wax transporteurs yi grève nañu Macky du ci wax leneen leneen waaye céebu jën mu nekk fi naan day def post ah kaldu kaldu bi sax mbaxalu saalum yooyu yëpp suñuy plat cere mbub yooyu yëpp nañ ko yóbbu waaye moom moom su meloon ni mu war a mel moom su meloon ni mu war a mel tey sénégalais yi nañ lekk ceebu jën ñaata sénégalais ñoo la ñoo ñeme lekk ceebu jën ak ak ak coof ci digg ba léegi waa sax lañuy defee ceebu jën jaay na géej gi yëpp mu naan xaw lan que le Sénégal ceebu jën nangam nangam yooyu yëpp li muy wane mooy président bu matadi loola tax nag ñun ñu ne woon tappale gi dafa doy ba ñu ko annoncé ba léegi nag. ma ngay essayer def ay pexe pour ñu fàtte ko parce que moom xam na li mu def ni mu aaye xam na li mu def ni mu garaawee te man li ma gëm mooy photo yi ki ko génne yéenewul Macky Sall jàmm photo yi mu photo Gibril Ngom ki ko génne yéenewul Macky Sall jàmm te xam naa ni neexu ko ku dem dajale na gaa yëpp lu ne mu ramasse leen ndax li mu def dafa garaaw koo xam ne dafa def njombe Sénégal yëpp ñaawlu ko est-ce que am na Sénégal kenn ku rafetlu lu biir Ngom def est-ce que am na du kilifa diine du citoyen lambda du intellectuel du waa diaspora du yéen ñii sax journal amul kenn ku rafetlu parce que Sénégal dañoo am ay valeur quand même même ñoom waa pouvoir bi ñu bëri dañ koo ñawlu parce que dañoo am ay valeur yu ñu jàngal ñun ngor kóllëre kóolute dafa am lu ñu koy sàmmee donc loolu am ñëpp ñaawlu ko moom mu am sañ-sañu recevoir kooku ak benn boyet boo xam ne benn enveloppe boo xam ne ñoom dëcce ñi xam xaalis nga xam nga ko nee nañu nee nañu 10 millions daal lañu ñu compté ci nee nañu daal li ñu gis daal ñi xam xaalis dëgg nee nañu yooyu ni ñu ko takkee noonu fukki millions moom jàpp nañ ni ba nga fa waaw léegi loolu bi moom xam na ni lu garaaw la def Macky Sall moo tax bi ñu ko annoncé ba léegi fu mu mun a taalee ma ngay taal su taalee fii mu mu tàkk mu taal fële jekki na jekki na day andi premier ministre ñun suñu yoon newul ci premier ministre ñun suñu yoon newul ci premier ministre Macky Sall lu muy def ak lu mu dul def ñun toppatoowuñu ko bu ko neexee mu far ba mu koy riitil suba bu ngoon premier ministre ñun loolu yëngaluñu ndax bi muy génne poste premier ministre moo toog ba mu neex ko mu ne moom léegi moom dong kot doy na pour yor réew mi nee na moom kot doy na pour yor réew mi tey nee na day delloo si premier ministre te bokk na li mu ko layee nee na comme day dem Union africaine dootul am jot pour Sénégal lu doy waar a ngi noonu lu doy waar man nag yërëm naa Sénégal ndax koo xam ne bi muy nekk fii yor mandat Sénégal rek mënalul dara réew mi tey mu naan maa nga dem Union africaine ñaari fan yu ne mu jël avion naan day dem défendre l' Afrique l' Afrique n'a qu'à se d' abord doog naan maa ngi dem defaat seen défendre yëpp mooy on a qu'à nañ ñu jox ay droits de tirage spéciaux nañ ñu nañu def ay fonds pour jàppale Afrique alors que yaa ngi jaay suñu pétrole jaay suñu gaz jaay suñu géej jaay suñu zircon jaay suñu suuf si ba pare di wër di wër di yelwaan loolu mooy gouvernance Macky Sall bi mu defee loolu sottiwul kenn fulaalu ko. dégg naa sax ñu ne léegi xalifa Sall la ñu bëgg def premier ministre <laughs> monsieur le premier ministre bul ma fàtte nag donc bi mu xamee ni loolu sottiwut mu génne yeneen ak yeneen non loolu day baax rek comme ça dañuy toog fële fii donc bi mu génnee ci loolu mu mu mu mu ne léegi Euh, amnistie delloo seet waxu amnistie Khalifa Sall ngi ni toog mosu koo ñaan amnistie grâce sax wax ñaanu ko ko moo toog ba mu neex ko mu signé grâce ñu ñëw yenn ko forcé ne ko dangay génn moom day gas ay kanam dugg ci guutam ba pare bëgg nag bu ciy génn nit ñu ñëw toog ak moom pour mu génn ci fi mu ne nii lenn rek la Macky Sall bëgg lenn rek ma wax leen ko mooy nu muy def ba toog ak ñun ñii dialogue la bëgg wax na ko sax keroog ci bi muy wax ak xaritam ya comme médias yi fii moom du wax ak ñoom nee na il est prêt à envisager amnistie wala réhabilitation loolu lu bees la ndax bu njëkk ba amnistie rek la waxoon réhabilitation mooy révision procès mais loolu yëpp ça doit se faire dans le cadre d'un dialogue goo xam ne wootee nga ko fi woote waat fi woote waat fi lépp xëy rek France pour moom naxe mbaay la ndaxi mbaay ni muy dajalee nit ñi ñu ne ña ngay waxtaan mu xëy daal ci signé lu ko neex bi loolu sottiwul façon pexe bu nekk def na ko ba yónni ay nit sax ñu an ñu essayé fi ubbi ay débat ci ay waasoo ki ay xeeta ki dem saaga ay ñoom Barthélémy Dias ak nangam nangam ñun loolu yëpp nag bi mu amee ñun xam nañ ni loolu ay contre-feu te dañu bugg léegi sénégalais xam ni ñun fa ñu jëm xam nañ ko jéego yi ñuy dos xam nañ ko lii suñuy objectif xam nañ ko Macky Sall li muy def suñu yoon newu ci moom ak askan wi la dootuñu mënuñoo détourner ci dara moo tax ñu continuer li ñu nekkee nii ba tey jii ñu déposer plainte contre Djibril Ngom waaye suñu yemoon ci plainte bi dafay am lu manqué moo tax ñu ne moom mii ndeyu mbill mi moom mi nga xam ne moo def li mu def mënuñu ko ñàkk moom it topp waaye xam ngeen ni président la république ci réew yépp ci àdduna daanaka dafa am lu ko yoon jagleel mooy du citoyen ordinaire moom nag nee woon na am na ñoo xam ne citoyen ordinaire lañ moom du citoyen ordinaire moo tax ñu defal ko lépp fu muy dëkk kenn du fa dëkk yoon bu muy jaar kenn du fa jaar wala dañuy arrêté ñëpp fu muy dugg di tukki kenn du fa dugg di tukki ak yeneen ak yeneen noonu lañ nee nag même bu defee njombe mënuñu ko atte fi ñuy attee Cheikh Tidiane Dieye ak parce que Déthié Fall sax am na immunité privilégiée judiciaire mais mënuñu ko atte fi ñuy attee ñeneen ñi moo tax ñu ne dafa am kuréel gu guñ ko jagleel mooy haute cour de justice haute cour de justice boobu assemblée nationale moo koy taxawal day am président muy président cour suprême am ay euh, euh, ministre am procureur cour suprême am un juge des députés et première session législature bu bees bu nekk premier session bi la ñuy installé cour boobu ñu ne nag cour boobu rek moo mën a topp président de la république ci benn benn benn mbir mooy su dee def na haute trahison mooy li mu li mu waatoon bi muy biñ koy fal li mu waatoon ne moom dina sàmmante ak constitution bi ak loi yi waaye dina sàmmulu constitution bi ak loi yi bu dee dem na ba loolu mu def safaan ba loolu mun nañ jàpp ni haute trahison la loolu nag la Macky Sall def ci mbir mi moo tax ñu ne dañuy saisir assemblée nationale waaye suñu jógoon ñun rek dem saisir ko day mel ni mbir mi dafa yem ci politique moo tax ñu dañuy lancer dañuy ubbi pétition citoyenne pétition bi nag ñaar la dina am boo xam ne ci kayit la mooy bii nga xam ne xale yi lañ koy jox dinañu wër fépp ci garage yi ci marché yi ci feneen ak feneen ñu ne citoyens yi signé leen waaye dina am boo xam ne en ligne lañ koy def mooy ci internet bi nga xam ne ku ne fii ku ne bitim réew feneen ak feneen ñëpp dinañ ko mën a signé bu ñu dañee ba dajalee nombre de yi ñu bëgg dinañu dem yéet ko assemblée nationale yéet ko. xam nañ la ne assemblée nag de xam nañ la fa ne waaye mbir bu jotee dañ koy dox ba mu mat dinañ dem yéet ko assemblée nationale pour que ñoom ñu mu des ak digg seen diggante ñoom ak askan wi loolu mooy solos pétition bi la ca tegu mooy bind nañ aussi Union africaine ndax moom dafa war a dem jëli présidence Union africaine nee na looloo tax amatul jotu Sénégal ba il faut mu ut fi premier ministre waaye de nañu bind Union africaine aussi jox leen pétition bi comme ñi ñu ci war a waxtaanee yëpp dinañ ci waxtaan ak ñoom loolu moo ne woon euh, euh, li ñu bëggoon a wax fii.